teewee dialogue national bi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall moo ko dal di woote njiitub commission finance bu assemblée nationale sàkku na niki altine ji ci ñiy yëngu ci làngu politique bi ñu dal di gën a jox bopp waxtaan bi su ko defee réewu Sénégal mën a wéy di am dal. dafa am jamono yoo xam ne réew mi dañ ko war a toog waxtaanee ko tey nag moom dafa woote pour ñu waxtaanee réew mi kon bu ñu la woowee ci waxtaanu réew yow nga am sa xalaat am sa argument te Macky Sall moomu leen Sénégal moo leen ñor ñun ñëpp Sénégal moo ñu ñor kon dafa jaadu que nit ñi war a mën a ñëw ku ci nekk ak li nga xalaat nga ñëw teg ko ci table bi ñu waxtaan pour que moom bu dégloo ñëpp nag moom en tant que président de la République chef de l'État mu mën a jël décision bu conforme ak esprit bi nga xam ne moom moo prévaloir fii. ngir jubóole askanu Sénégal yépp njiitum réew mi Macky Sall dafa xamle ne dina amal ab projet de loi d'amnistie ngir baale lépp loo xam ne xewoon na fi ci diirub ñetti at yi. réew bi nga xam ne jamono ji dafa nekk ci crise bu juddu ci bi ñu dàqee élection présidentielle yi ñenn ci acteurs yi ne ñoom d'accord nañ ci lu nu mel. j'ai vécu 1988. atum 1988 fii la ñu fekk bi nga xamee ne amaloon nañ état d'urgence nga xam ne ay leader politique yi nekkoon PDS ba ci man mii dañ leen a dugaloon kaso laata ñoo génnee résultat yi nekk nañu fi ay weer ñenn nañu am ay gaañu gaañu ñeneen ñi ñàkk seen bakkan moo am itam ay yàqu-yàqu yu bari wante loolu terewul woon ñu amal loi amnistie boo xam ne yamul woon rek ci leader politique yi dañ cee boole woon ay militants MFDC yoo xam ne ñu ngi woon ci prison bi depuis 1981. depuis 1981 jusqu'en 87. njiitu réew mi Macky Sall dal dinay ubbi niki altine ji ay waxtaan dal di koy duppee dialogue national sekk lu toll ci ay téeméeri téeméer responsable politique ay chef religieux. ak ñi nga xam ne ñoo teewal société civile bi waaye ñenn ci ñi nga xamante ne ñoo waral bile crise teewuñu ci lu ci mel ni fukk ak juróom benn candidat yu bokk ci fukk ak juróom ñeenti candidat yi nga xam ne conseil constitutionnel retenir na leen ngir ñu bokk ci présidentielle bi